ay fan rek dox suñu digganteeg jongante njiitu réew yi dañuy bari tàmbali di tàng sëriñ bi moom di xamle moom ki ko jiite moo doxalut yoon ndax yenn ci candidat yi dañ leen a génnee tey métti lu waale seen pièce d'identité yi ñu jotut. ñun élection yi ñu nekk ci bi ñoo koy tàngal parce que ñun jàmm lañu woote bëgg nañ élection yu jaar yoon élection yoo xam ne ñëpp danañ namm nanga nangu ne élection yu jaar na yoon. jàmm di xew ci réew mi ñii fi man mii la ne man maay tuurum PDS fii dañoo dañoo e, day xool dañoo seet ñi nga koñ fi xam ni PDS nga koñ fi xam ni PDS nga ci dëkk bii sa carte d'identité dañ ko nangu dañ ko téye maa ngi nii sama carte d'identité bii mi ngi nii xoolal lii xoolal c'est vraiment sama récépissé bii mi ngi nii ëpp na ñaari at genn wàll sama kart d'identité mënu maa fexe ba jot gis-gisam boobu nag wuuteeg lool gis ko waa ji ndax waa ji nee na dinañ ko def ci jàmm ak salaam ndax réewum Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk moom nag dàqut kuy wane sa naqar nga defee ko ci neneen ah, élection yi dana am jàmm am ndax am tey jii rek gis nga sëñ sëñ moo sëñ Muntaxa wàccalu nay kaamil jàng alxuraan ak pour ñëpp di nekk ci jàmm kon dana fi am élection yi moom dara du tàng léppay set maanaam dafa nar a tàng maanaam waxin la rek mais maanaam luy tàng amu fi fii Sénégal la dëkku mag ñi la mag ñi am na luñ fi ji te it xamante nañ ñu ni nee na waaw dox ñaatu kenn tëral ko boo ñaan autorisation ñu may la nga dox ci civilisation ñëw laaj dox dox li ñi dégg la dégg dañuy dégg de du caaga da ngay yàq rek ñu dégg la doo la wax rek ñu dégg la am déet dara doxu fii ñenn ñi nag jàpp na ne réew mi di Sénégal dara doxu fii ndax yaramu mag la rek foo laal léppay metti wante di ma gisal réew mi di wax sama xalaat ak sama doléance moo dara doxut bépp foo lamb mi ngi metti yaramu mag la foo lamb mi ngi metti waaw doxut. ak lu ci mën di xew nag ñu ñaax ci réew mi ñu def ko ci jàmm ak salaam.